ci jabrul kasri mu ne wala wuñu yàlla na ko ay ba tey zaado yàlla na ko yokk allah yàlla faydan ak bëbbu bokk na ci xasida yi xasida bii ñu bëgg a jàng tey muy tagg yonent bi sallallahu alayhi mu ne muhammadun muhammad al mustafa kuñ tànn ki awlaahu méngale na ko maanaam jox na ko mawlaahu boromam kullal ataaya mboole mayi wa adnaahu te jegeel na ko boppam wa alaahu te kaweel na ko bàyyi mu muhammad moom la yàlla tànn ci mbindeef yépp mu gënal ko dul moom gannaaw loolu mboole may gu yàlla am rek may na ko yonent bi sallallahu moo xam may gu feeñ wala gu nëbbu xadis ba dëggal ko yonent ne allahu almuti wa ana alqasim yàlla moom mooy joxe waaye man maay séddale lépp lu nit am rek yàllaa ko joxe waaye yonent bi moo ko sédd su du woon yonentu yàlla joxut ko lépp du mën a séddale lépp waaye bu dee may gu wàcc ci jaam yonentu ci la jaaree loolu dafay tekki ne ndeke may yëpp yàlla yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ko jox moo tax mu yàlla jox na ko kullal ataaya mboolem may dara génn ci gannaaw ga yàlla jegeel na ko boppam yonent bi jege na yàlla jege goo xam ne kaana qaaba qawsayni aw adnaa xam nga qaaba qawsayni mooy distance bu gàtt rek xala ak ñaari xëcc yi waaye yàlla ne aw addinaa aw addinaa la kenn xamu num jege na yàlla jege koo xam ni nit mënu koo misaal waaye nit ñi booy wax ak ñoom da ngay wax ak ñoom ci yan kem tolluwaay yàlla ba muy melal leeram daf koo melal ak leeru jënt allah nuuru samaawaati wal ardi masalu nuuri kamishkaatin mu melal ko leeru làmp yàlla gën a leer làmp foofu waaye nit ñi loolu lañ xam moo tax mu melal ko noonu <coughs> jege yàlla ak yonent amut nu ko nit mën a melalee waaye fu xel yi toll la yàlla wax kon moom jege na yàlla jege koo xam ne moom rek moo xam nu mu demee gannaaw ga yàlla kaweel ko li gën a kawe ci yàlla bind mooy yonent yi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi moo leen fare kaw kon waxatuñ ku dul ñu dul ñooñu ku kawe yonent yi waxatuma keneen bal yonent yi bu leen yàlla yónnee sax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax yàlla yónni leen alquran wax na ko ne yàlla dafa fasanteeg yonent yi kóllëre gannaaw leen gannaaw mu leen joxe xam-xam jox leen yonent ne bu ngeen dajeeg ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam na ngeen ko gëm dimbale ko nangu ngeen ñu ne waaw mu ne seede leen mu door leen yónni ku gannaaw mu génnee la ci daayira nubuwat kon yonentu bu nekk yonentu rek ci barke yonentu bi la ko yàlla yónnee kon xam nga ne kooku moo gën a kawe yonentu lim leen gën a kawe moo tax mu mën a am loolu aawaahu yàlla fat na ko summa hadaahu topp mu jubal ko waxtadaa mu gindee ko nafarun mbooloo bi hadihi ci njubam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa axnaahu koomal na ko bu aydal faqri gannaaw ak yonent yalla mohammad salalah ih sallam yalla ko fat fatak zahir ak batin nekkoon na mànk tumuranke lool ñu di ko sànnante ci mbeddi màkka ya daan na dem di julli ji ci kaaba ga ñu song ko moo tax ma ne kuñ mën a lor loru ñu lor yonent yi mu ëpp lañ la lor ndax lu la nit yab yab yab ñemewul nga génn mu song la yonent nag génn na xéeféeri màkk yi song ko xooj ko ci doq ga ak malaan xam nga loolu kuñ ko def ba yàggee nga dee abubakar moo ñëw puus leen ne leen ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah ma nax ah, da ngeen rey koo xam ne waxu leen lu mooy yàlla rek mooy sama borom ñu bàyyi yonent bi song abubakar boobu bopp bi ñeenti njub bu la ko def ba muy ñibbi kër ga loolaal ci karaw gi mu topp ko ndax lan ndax këcc nañ karaw ga ba mu dagg loolu yonentu jaar na fa xam nga tumuraanke na foofu daan na sëgg di julli ñu sotti ko sébbati gërëm yi mooy li nekk ci mbaqi gërëm yi mënul siggi ba Faatimatu doomam moo ñëw di ko ko dindil ànd ak ay jooy noonu la tumuraanke woon ci Makka ñu yore aw nitam gannaaw ga mu dem taayef yaakaar ñu génne ko dégg nga dajee fa ak ay nit ñetti nit mu ñaan leen ñu fat ko kenn ki ne ko xanaa yàlla amul keneen ku dul yow xam nga loolu mooy sabote bi gën a mag yonent bi noo koy xoolee di di keneen ku moom ndax moom ku moom moo la dàq moo la gën a rafet bu dee jikko moo la ko ëpp bu dee xam-xam moo la ko ëpp bu dee mbaax moo la ko ëpp noo koy xalaatee di xalaat keneen ku dul moom waaye gis nga rek ku yàlla feeñal ci yow may nit ñi ah, ñu bañ dana ñu la di la yaa sax dañuy jël ku gën a na na na kii falu waaye moom yow nga yàlla feeñal may gi ci yow déedéet xam ku ne ko bu ne yàllaa la yónni man wax ak yonentu yàlla ëpp na ci man dama wax ak bu dee nag li ngay wax ni xamut man du wax ak kuy wax loo amul ku mel nii mu dem bi taayif ñu génne ko boole ko xale yi ñu di ko sànni xeer ak nit ñu dese dégg nga sallallahu alayhi ba ba ngi ñëw ci yoon yi man ngaa wax ne daanu na xam ndax coono bu métti bi muy daj gannaaw ga nag ci la ko yàlla fat yóbbu ko Madinatul Munawwara mu am fa doole lool am fa kattan am fa nguur bàyyi na yàllaa ko fat moom yonent bi sallallahu alayhi wa jubal ko ci yoon wu jub bi innaka ala siratim mustaqim la ko yàlla wax yaa ngi ci yoon wu njub bi waaye ko ci teg gannaaw ga mbooloo mu bari jubee ci njubam Abu Jahlin daan na wax ne ak Abu Lahab kenn du jàng alxuraan ca mag te Sénégal gi gën a sori ñu ñaa ngi fay jàng alxuraan dégg nga mboolem jullit ñi mm, tasaaroo maanaam jullit ñi tasaaroo nañ ci àdduna fu ne foo dem fekk fa jullit te bu njëkk mbooloo su néew la woon ñu leen i mm, ci biir mag kon mbooloo mu dul jeex jub nañ ci njubam yonentu boobu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi yoru woon dara jirimam abu abu taalib bi lañ ko wax amu woon dara waaye gannaaw gi yàlla koomal na ko ba ko yàlla koomalee taxul mu am àddina moom ndax da daan joxe waaye daal yàlla may na ko ba daan na may ay téeméeri gërëm gis borom alal ji ko mën a maye loo bëri bëri alal rek yonentoo la gën a tabe ndax joxe na loo joxe wut daan na joxe téeméeri gërëm daan na maye ba nit ñi naan daw leen Muhammad dafay joxe joxe ko ragul ñàkk kon yàlla koomal na ko gannaaw bu mu ñàkkee waaye yàlla fat na ko ci alamul arwaax alamul arwaax nag xàmmee mënu fa nekk ay roxo rek ñoo fa nekk gannaaw ga yàlla jubal ko ci alamul asbaax nga xam ne ci ngay mën a xamee kii mooy kii kii mooy kii lii mooy lii lii mooy laa yàlla koomal ko ba lépp loo gis rek ci may yonentu la bokk dégg nga allah yàlla taxarahu laabal na ko wallaahu yàlla arsaloo yónni na ko lil xalqi jëm ci mbindeef yi waxul jëm ci nit ñi jëm ci mbindeef mbindeef mooy loolu yàlla turan mboolem seen fa maa fi rusli nekkut ci yonent yi charwaahu kemam yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa yàlla laabal na ko laabal na ko ci bokkaale laabal na ko ci jikko ji suufee laabal na ko ci sobe gi ñu mën a xam moom ku set la dégg nga ci yi laab giñ laab moo tax ñoom amuñ sobe lay sobe ci nit lay génn ci nit ñu naan sobe la ci yonentu laab la ndax même yàlla fen laabal ci lépp sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni ko nag jëm ci mbindeef yépp loolu alquran dëggal na ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina moom yërmande la jëm ci mbindeef yépp kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñëpp lu ko yàlla yónni ci nit ak ci jinne ak ci malaaka yi ak ci jamaat yi mboolem lu yàlla bind rek yàlla yónni na yonent bi ci yow yónni ko ci nit ak jinne yónni tug togg jëf maanaam mu sant leen ñu war a def mu tere leen ñu war a ba yónni ko ci leneen lu dul nit ak jinne yónni tug teral leen yónni tug yónni tug googu nag man nga ko misaalee ne képp ko xam dara rek yónni too la ko may kon moom la ñu yónni ci yow li nga am yëpp moo la ko jox amut ku mel ni moom yi xarit Mustafa tànn moom yàlla Mustafa kuñ tànn ki min Mustafa mu jugee ci kuñ tànn wasafaa te sell na dal Moustapha kii nga xam ne moom lañ tànn wasafaw sell nañ ñoom askanam min ajli qurbaahu ngir jege gi ko jege wala wasafaw sell nañ ñoom ñi nga xam ne ñoo topp yonent bi min ajli qurbaahu ngir jege gi ñu ko jege yàlla dafa tànn yonent bi mu jugee ci tànneef kon moom tànneef la ay maamam ay tànneef lañ dégg nga sell gim sell moo tax ay maamam sell. wala nga ne yonent bi set gim set sell gim sell moo tax ñu ko topp ba jege ko sell moom tànneef la ci tànneef la jógee te ku ko jegee di tànneef moo tax ku bëgg ràññeeku rek fexeel xaw yoonu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa bal sax danga mun gis ku mel ni yonentu bay jël keneen di ko teg ci kawam xoolal ci mbindeef yi xoolal ba sa bët raw xalaatal ba sa xalaat jeex jàllar bi kul tukkil demal fu ne nga ndax dangay gis ku mel ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taarix ko koo andi du ko mos a andi te mos te nekkul ci jamono ji su ko defee koo xam ne kemam amut dëgg-dëgg ba yoonam di topp yoonu keneen defe naa ne xel mu gàtt rek moo ko mën a maye. dégg yàlla nag boo bëggee xalak nit daf koy wërsëgal xel mu tuuti xel mu tuuti moo waral waa Makka yonentu mu mat moomu mu rafet moomu. mu rafet jikko woowu bu baax boobu yoonam wu set wu maandu woowu nga xam ne Fatima doomam sax bu sàccoon mu dagg loxo amul gënale arab te moom arab la ci nit ku ñuul bu ko neexoon mu ne arab yaa gën bu doon nguur lay wut waaye def na ñëpp nit ñëpp a yem dégg nga yonentu borom yoon woowu nit ku mat kooku ñu ne mënul nekk yonentu yàlla ndax loolu rëy na ci moom dem jël ab doj ne moom mën naa nekk yàlla bañ koy jaamu xam nga loolu xel mu gàtt rek moo ko wax doj wax mënul dara nga ne mën naa nekk yàlla yonent yàlla Muhammad xam alayhi wa sallam mi nga moom mënul nekk sax yonent yàlla la kooku xel mu suufe rek moo tax nit di ko def dégg nga waaye xel mu suufe moo tax yonent yàlla yónni ko mu rëdd aw yoon wu jub nga ko fa di topp yoonu keneen wallaahu yàlla akramahu teral na ko fi yawmi mawlidihi ci bis ba mu juddoo ووقت نشأته أك وقت ومسوسو وليل مصراه أك قدك رنيانم وليل انت على محمد صلى الله عليه وسلم يالا ترال نكو تي بيس بوم جودو جدوم كوني خامني ني جودوم قرباخ يدول جيخ خيونا تيا كريميا دم يوم نياب دنگا بوري بوري كرك كن فنانو تي لال تباخي توج سن loolu lépp mu di leen waar ne seen nguur a ngi waaj a jeex xërëm lañ loon jaamu wala boog ndox yi nga xam ne nii yoroon nañ ko ñoom ñu doon jaamu xërëm niis safara ñu doon jaamu fay loolu yëpp yàlla na koo def ngir teral yonent bi nga xam ne moo judd ci bis boobu bis ba sosoo ci biiru yaayam it lu mel noonu xew na yàlla teral ko ko mu ne guddi gëm rañaane yàlla teral na ko yéegi ko ci asamaan mu dajeeg malawul ala dajeeg boromam ndax teraanga nga gënul rëy dajee ak sa borom dégg nga loolu lépp yàlla defal na ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallaahu yàlla arsala na ko li naasi jëm ci nit ñi ajma'i mboolem seen xatma risaalati mbir mu muy mottali yonent gi maa lu màgg màgg ala kawel na yonent bi walu màgg màgg axlaahu seeral na mbiram yonent sallallahu bi waxoon na ci gannaaw ne yàlla daf ko yónni jëm ci mbindeef yëpp fii it mu ne yàlla daf ko yónni jëm ci nit ñi yónni bi ko yónni jëm ci nit ñi rek yónn euh, euh, dégg ko xusuusiya la waaye yonent bi ñu ko yónni jëm ci mbindeef yëpp kooku moo di umum bi yàlla daf ko yónni ci mbindeef yëpp waaye yónni ko ci nit ñi ak jinne yi yonentu togg jëf gannaaw ba mu ñëwee nag yàlla yónneetul kenn moo tëj risaala gi moo tax amut nit ku am sañ-sañ di àttewoo beneen sharia bu dul sharia yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala yi lum foor foor mën naa indi dégg-dégg bu bees ci dégg-dégg eh, yi aju ci mbiram yonentu waaye nag du indi sharia bu bees waaye nag danaa indi dégg-dégg bu bees yonentu moo mu ne lu gën a kawe yonent bi waaye lu gën a seer mbiram yonent bi amut taabat tey na sariratoo mbootam faaqat kawe na ñëpp sa jiyatoo jikkoom xat tamma mat na moom yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam suuratuhu melowam wa tamma mat na maanaahu maanaam yonent bi jikkoom ji nga xam ne nii ci biiram la nekk jikko ju tee la bëri na koo xam ne nii zaahiram rafet na maanaam lañ xam ci moom ci bitti rafet na waaye bu wéetee la muy def lu ñaaw la lan feeñal lu rafet la waaye nag lam nëbbu lu ñaaw la yenoon yonentu nag melu noonu moom lam nëbbu dafa rafet lam na bu ci xolam lu rafet la waaye la muy def ci biir nga xam ne kenn fekkewu ko lu rafet la ndax lépp jaamu yàlla ak jooy ak fàttaliku yàlla dégg nga ak teew ak yàlla lu rële def mbootam laab gim laab moo tax ba mu nekkee màkk gis leen ñu nekk ci jaamu xeram ak jikko yu suufee te yàlla yónnee gut ko boobu mënoon naa bokk ci yooyu waaye dafa beru dem ca xaaru xeraa ngir wéetal fa boromam waaw jikkoom it kawe na jikko yëpp lu nit rafet rafet jikko yonentu gën la ko rafet bal ci jikko yonentu rek nga ñiitoo moo tax nga rafet jikko sóoraam dafa mat maanaam jëmm jikko yàlla jox dafa mat sëkk kanam ga boroom xam-xam yee nee na dafa mel ni jëntam njolloor ndax rafet ñaqam moo dàq parfon dañ ko daan jël sax buñ nelaw dañ daan jël ñaq wi di ko def seen parfon yi ndax neex gim neex koo mos a gis ku mel noonu hmm? kanam ga nag leer ga leer goo xam ne gu jéggi doy la ndayaay surtout puso réer na ko ci néegam mu di ko seet mënu koo gis yonent ne tëll kanam ga feeñal puso ba mu ne ko mu wax ko béyti ba bañ ko taggee ne ko ku matee ni yow kooku jigéen mosu koo jur ku rafetee ni yow bët mosu koo gis jigéenu Suleyxa yi gisoon Yuusufa di dagg seen loxo ya buñ la gisoon seen xol yi la dog ndax yaa yaa yaa dàq yonent yàlla Yuusuf kooku dafa mat ci lépp yonent bi ku rafet la woon taaram nit mënul gis taar bu mel noonu waaw ku ku amoon xayba la ku amoon wegeel looloo waral jigéen ñi ñëmuñ koo topp yonent yàlla Yuusuf dafa taaru woon waaye amul woon wegeel googu yonent bi dafa taaru mais boo ko xoolee da koy ragal boo jaxasoo moom nag gis na moo gën a noo ñëpp jikko moom noonu la mel nit daan na mu di ko yefal ne ko man duma dara jigéen laa joo xam ne sama yaay fii doon lekk ay seelit maanaam wan ko ne ko nit laa rek ko mbiyeen sallallahu alayhi wa sallam noonu la rafetoon waral yàlla defaroon ko lumbu lumbu seytaane bi nekk ci biir doomu aadama doomu aadama bu nekk am na cërëb seytaane ci moom yàlla def na ko ci yonent bi sallallahu alayhi ba pare yebal jibril mu ñëw xar dënd ba di génne lumbu boobu lu tax ñi defoon ko ci ndax ñoo bëgg mu mat bëgguñ lu doomu aadama am te yonantu amu ko moo tax bépp cër bu doomu adama am rek am nañ ko am na ko waaye dañoo bëgg mu mat ci maanaam moo tax gannaaw gu ñu ñu dindiwaat ko maanaam raxas loolu nekk na fa ngir jëmmam mat bu manqué dara waaye gannaaw gi dindiwaat nañ ko kooku mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ci maanaam mooy jikkoom dafa mat dégg xam yàlla dafa mat bëgg yàllaam dafa mat jege yàllaam dafa mat li doomu aadama yi am am na ko waaye nag mboolem jikk yu baax yeeg yu sell matal na ko sëkk jëmmat bëri na xawaariqu ay xar baaxam xawaariq mooy yi nga xam ne nii dafay xotti aada maanaam ñun xamuñ ko ci aada daf ñuy yéem loolu nag bu ko yàlla feeñalee ci yonentu balaa ñu ko yónnu yónni noonu lay tudd xawaariq bu ko yàlla yónnee ba pare feeñal kawte bi ci moom mu nekk moo mojisa yonentu nag xawaari xam yi mooy yàlla feeñal ci moom balaa mu ko yónni kenn xamuñu toll borom xam-xam yi taarif nañ ci téere yu jeex bokk na ci dégg nga xibaar gi ko yéexoot yi doon xibaar ñoom ñëpp ñu ngi doon xibaar mbiram bàyyam tukki na dem Saam yéexoot yi dajeeg moom benn yéexoot dajeeg moom gis yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko delloo jël xale bi yow yi dañoo soxor buñ koy gis danañ ko rey te xam nañ ne bis tey bisu tey bi yonentu boobu dana tukki ci barab bi baax la ba koy delloo si suut tuuti rek yow di ñëw pour seet ko gisuñ ko loolu ci xar baax yi ko yàlla defal la bokk ak yeneen ak yeneen raaxat yéeme na xalaayiqu ay jikkoom jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jikko yu teey la woon jikko yu neex la woon ba booy ànd ak moom doo bëgg a taqalikoo ak ak moom Abubakar Siddiq wax nañ ne gannaaw yonent bi ñaari at la dund ak lu teg daal di génn àdduna ndax la ndax mënul taqalikoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbëggeel gi cofeel gi moo doon dog xolam ba di ko jeex loo ba ni mujjee génn àddina ndax taqalikoo yonent diis na ci moom dara warlu ko nag lu mooy jikko yu kawe yi nga xam ne gis na ko ci yonentu boobu wal xalqu mbindeefi xaaliquhu ki ko bind te moo di yàlla lawlaahu bu dul woon yonent bi maashaahu loolu du ko soob maashaahu du ko soob maanaam bind mbindeefi du ko soob bu dul woon yonent bi yàlla du bëgg a bind mbindeefi xam nga yàlla lu ko soob mu am waaye soobu di yàlla mukk mu bind mbindeef bu jógewut ci yàlla muhammad sallallahu wal xalqu mbindee fi xaaliquhu ku ko bind lawlaahu bu du woon yonent bi maashaahu du ko bëgg a bind bu du woon yonent yàlla du bëgg a bind mbindeef kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo jugee ci yàlla leneen lu dul moom ci leeram rek nga mën a jóge ak koo mën a doon loo màgg-màgg xaaj nga rek ci moom melo nga rek ci moom waaye moom mooy jëmm ji dajale lépp waaw la alayhi wasallam moo tax am na sant yonent bi ku ko santu ci àddina da ko sant ci àllaaxira am na ñoo xam ne ci àddina dañuy bañ jaaxle daw jaar ci buntu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam te xamuñ ne may ñi ci moom la ko yàlla def dégg nga waaye yomal xiyaamati moom ñëpp danañ daw dem ci buntam pour yàlla atte jaami rek foofu ñu jaar ci loolu nag bu doon bokkaale la kon neel bokkaale dagan na ci àddina xaraam na ci àddina dagan ci àllaaxira bokkaale du mos a dagan Muhammadul Muhammad sayidul kawnayni mooy sangu ñaari way nekk yi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sangu àdduna ak alaaxira xurratu naa mooy suñ sang xurratu xurratul qawmi mooy sayidum rek mooy seen sang waaye xurratu dafa firi jébbu jébbu mooy lu weex li nga xam ne moo nekk ci fas bi xam nga moo gën a rafet ci fas bi te dafay ràññeeku ci biir melo yi yonent yi noonu la mel mooy sang boo xam ne dafa ràññeeku ci biir nit ñi mooy sangu ñaari way nekk yi sang dëgg nag mooy alkaamilu almuxtaaju ku mat kuñ soxla loolu moo di sang yonent rek moo xam ne melowoo moom rek mooy moo mat mat goo xam ne nii dégg nga kenn mateewul noonu moom rek lañ soxla soxla goo xam ne soxla soxlawuñ ko leneen ndax ku soxla jëm pour nekk rek foo yonent jaar fa nga door a mën a nekk waaw ki la jox sa nekk nag jox la sa xam ba jox la say may ah kooku kay mooy sang moo tax maqaama sang kuñ ko wax wax nañ la ko majaazan waaye sang dëgg mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa la yàlla wa maa kon kon ku xam may ci yërmande yàlla nga ko jëlee te jëmm yërmande googu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga yàlla wax na qul in kaana li rahmaani waladun fa ana awwalul aabidiina bu dee yàlla am na doom yonent ne maa ko njëkk a jaamu kon moo njëkk a waaw lim njëkk xam moo tax lépp lu ñu war a jaamu moo koy njëkk jaamu pourtant jëm moom ji ñu xam de moom yàggul la ñëw waaye jëmm ji doon yonent yi di gëm balaa leen yàlla yónni kooku mosu fee jug kooku moo njëkk a yàlla mooy awalu abidin comme que moo njëkk xam nag ah leneen luy xam ci moom rek la mën a jóge moom yonent bi sallallahu alayhi muy xadis bu wér mu ne yàlla kii raayam moo di leer bu ko dindi woon ku janoog moom dal di ñàkk dal di lakk yàlla nag xam nga ne dara mënu koo muur maanaam mbindeef mënu koo muur ndax mbindeef mënul yaatu ni moom moo tax kiiraay googu waxin la nekkut comme malaan guy muur yàlla ba nit ñi mënuñ cee teg ba déedéet daf ne mbindeef yi attanuñ lay jógee ci yàlla direct attanuñ ko comme ni nga xamee télé bii ngeen gis wala lamp yi attanuñ courant bi jugee ci Senelec direct il faut euh, ñu jox benn kii kooku ñëw balancer courant bi li mu attan télé bi li mu attan nangam bi li mu attan nangam bi li mu attan pour ñu pour nekk ci jàmm. <laughs> waaye balance balancement direct ci Senelec ci courant bi mu lakk léegi mu lakk léegi. mbindeef bi tamit bu ñu jëlee woon ci yàlla direct ñàkk léegi waaye nag am na fu ñuy jëlee. kooku ñu jëlee nag mënu nekk lu ma yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam parce que yonentu moo gën a mbindéef yëpp te ki gën a jege yàlla yàlla nee na moom moo gën su ko defee kon moom mooy sang dëgg ndax ñëpp ci moom lañ jëlee waaye sang bu ràññeeku nag bu fës xurratuna wa kullu ma qad bada lépp lu feeñ nga gis ko fa min ataaya ngi bokk ci ay mayam bàyyi daf lay jegee nag yonentu boobu sallallahu alayhi wasallam ne li ngay gis ci may yëpp xamal na may yonent rek la woo moom alxabibu mooy sopp bi allazi bi nga xam ne asra rañaane na alxabibu soppe ba bii ci moom mooy soppe bi yàlla bi yàlla rañaane nekkul moom moo rañaane waaye yàlla ko rañaane yéegi ko ci maqaama yi kawe yi jibrilu jibril xaadimuhu mooy mindaanam bi koy liggéeyal wala xaqu yàlla naa jaahu di yàlla nag moom ba muy rañaan yàlla jibril la ko booleeg muy liggéeykatam jibril mi gën ci malaaka yi dégg nga moo doon liggéeyal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi يلا وحن موم لا يلا وحن موم نعيا لين فأوها إلى عبدي ما أوها نكون نب نفونكو أما ينتي على موسى لا يلا وحن موم موم نتل نكو بنيب خامكو لونك سندي جوربي سميت بلا نعم نعم مم جيخ واي واي ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم موم يلا وحن نعم موم رك دين بان فين عجائب أي كيمانم واي بان لير نغرائبه أي تمر أي بيريو تمران كم ينتبي mbiram ñu tumuranke yi leer na ba ñëpp xam na dëgg-dëgg kii ku tumuranke ci nit ñi amul nawle amul morom kimtaanam yi feeñ na bokk na ci kimtaanam yi ba léegi ni ñu ci teg bët mooy mbooloo mu dul jeex di dajee ci makkatal mukarrama ñu ngi ci profité ñu ngi ci weeru aj di ñaanal ñi nga xam ne ñu ngi foofu yàlla yàlla nangu seen aj ñu demagun yàlla na yàlla may ñu dem dañ dajee ca jamra sànni jamra xam nga ne mbooloo moom fu ñu sànni xeer ku nekk sànni juróom-ñaari xeer bal sax day ëpp juróom-ñaar ndax jamono bu nekk rek da nga fa sànni juróom-ñaari xeer loolu ay camion ñoo fa war bu ñu sànnee di génne xeer yi ndax dafay bëri waaw kër gi rek bu fi mbooloo mu tuuti daje woon di sànni xeer balaa ngoon nga gis jóoru xeer nekk fi rawatina jullit ñoo ñëpp daje foofu waaye bu ñu paree doo fa gis dara tuuti xeer nga fay gis ndax xeer yi yàlla na nga yóbbu na ko loolu ci kimtaan yi ñu mën a teg bët ci la bokk nga xam ne ni ba léegi ku dem boobu fekk ko fa bokk na ci kimtaan yi nga xam ne yàlla may na ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy kaaba gi nga xam ne ñëpp xam nañ ne malaaka yaa ko njëkk tabax aadama bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk mooy suñu maam tabax na ko diine yëpp nee nañ ñu ngi ci yoonu Ibrahima Ibrahima tabax na kaaba gi alquran nettali ko kaaba googu kenn werantuwul ne mooy néegu yàlla ci kaw suuf jullit ñi rek ñoo koy wër tey néegam yàlla nag yàlla am na fullaay garde ko ba ay soppeem di ko ziyaare bu ko dàq bu ko aayee ñëpp jullit ñi rek ñooy ziyaare ji nekk boobu dafay wane na ñii ñooy soppe yàlla yi ñii ñooy gane yàlla yi ñii la yàlla ci kaw suuf moo tax ñëpp bokk ñoom rek ñoo koy ziyaare hmm? waaw jullit ji kaaba ga ñoom kese am na lu mu jàngale dafay wane ne ñoom ñooy jaamu yàlla yàlla gërëm fatii lii bu onsul mooy délégation la wu ñële bi mu ne jàngal da mbooloo ñoom defar la ay nit gannaaw gi mu yónni leen ci dëkk yi pour ñu xoo leen jëmee ci lislaam yónni na Muaz yónni na ñu bëree bëri ci saxaba yi pour ñu jàngal la ñuy lislaam wati li sarayaahu moo di mbooloom xareem sara sarayaahu mooy mbooloo yi nga xam ne yonent na ñu dem xare ji te moom bu teewee nag rasul ay délégation ñu xoote jëmee ci lislaam waaye yónni na ay mbooloo yuy xare ji dégg nga di leen moom teewut fa mu ne watil que lale nag raafatu mooy yërmande maanaam dafa bëgg a tagg yonent bi dégg nga melo yu bëri mu naan waa xoolal bu dee da nga bëgg a da nga bëgg eh, eh, xam kimtaan yi xoolal ku defar ay nit ba yónni leen ñu nekk ay sëriñ loolu mooy ijaaza foofu la mu commencé muqaddamale ay nit ñoom ñu dem di xool ñu ñi jëme ci islam mu ne jàmbaar yaa ngi nii saxaaba yaa ngi nii ku eh, dégg nga laal lislaam wala nga bëgg koo noggatu ñoom ñu taxaw sa kanam bu yonantu teewu tamit ñoom ñu ngi teew ñooñ bëgguñ ko ngir ngistal buñ ko bëggoon ngir ngistal buñ ko wanee gannaaw duñ def dara waaye buñ ko wanee gannaaw ci lañ gën a nekk jàmbaar mu ne yërmaane ma ngay def wa tilka raafatuhu ku bëri woon yërmaane la moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa tilka lale minnatuhu mooy xéwalam wa tilka lale hijratuhu mooy gàddaayam wa tiili mataayahu mooy warwaayam dama bëgg wax ne léppum kimtaan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku bëri woon yërmande la waaye ku bëri xewal la dégg nga bokk na ci ñu doon toppatoo yonent bi ba muy nàmp ci Xalimatu Saadiya yonent bi jàpp na ko ci xare moom ñëwee na ko man maa lay toppatoo mu lalal ko malaan gi teral ko daal di ko bàyyi mu dem hmm? ndax lan ndax moom du fàtte kóllëre ku bëri xewal la loo ko defal lu mu gàtt gàtt rek bis dina ñëw mu fay la ko Hmm? mu ne gàddaay na jógee Makka dem Medina ngir yàlla waruwaayam yaa ngi noonu amoon na ay waruwaay yu bari waaye nag bi gën a yéeme ci waruwaayam mooy buraaq mi nga xam ne moom la waroon ba muy gàddaay yo ba muy rañaan yoon lii dafay kawel nit moom yonent bi laa sabab biñ ci dund benn sabab dafay defar nit koo xam ni defu dara de moom moo baax rek defar ko waaw fekk nit koo xam ni ku suufe la mu kawel ko ba mu gën a kawe ñëpp saxaaba yi ko topone yëpp ni ñu doon jaamu xërëm Omar ibnul Xataab lan la waxon damay ray yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam gàddu jassem bam mu demee yonentu xecce ko kawel ko batay ganna abou bakkar mo gën ci xeet mu muji nek khalifa yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam kon leg leegi mu kawel nit te defu dara ci mbaxam rek lako dimbalé tek ko ci yoon yonent yi fay joxe bila ajibin ci dudul kiimaan yonentu mën na laa jox waaye du yim lu la jox am na koo xam ne bu la joxee ba diw defal naa ko de waaye defal naa la xéwal de waaye yéen def loolu moom dalay dalay jox li mu lay jox ba pare mel ni joxul la dara Abbas bàyyi taxu yonantu la ba muy re ba muy ko jàppee ci xare Badr dañ leen a jotu mu ne yonent bi xam nga ne waa Banu Hashim yëpp man maa leen di joxeel te jël nañ ci man ci xare bi alal nañ ma delloo alal jooju yonent ne ko mukk laa dina loolu duñ ko def jotu rek ah mu daldi di joxeel waa Banu Hashim yëpp daal di tuub dugg ci islaam yàlla ne bu ngeen yàlla ne ko boo tuubee yàlla dana la remplacer li gën te jël ci yow yonent ne lii ko maalul baxrayni alal ju jógee ci baxrayni pour wane ne yonent bi ñàkkul woon yàlla koomal na ko waaye moom dund ko ñàkk la doon dund waaye li mu amoon ñëw na ko ko mën a am ci jamono ji bañ ko indilee maalul baxrayni ñu def ko jóor boo xam ni boo toogee ci benn jóor bi keneen toog ci beneen wet ga du ngeen gisante ku mu ku mos a am alal ju toll ci wurus jóor wurus bi ci jàkk ji lañ ko jóor nit ñi daw di ñëw. gaa yi di julli ji fajar mu xool nañu di muñ parce que xam na ne gaa yi daan nañ julli ji gaa waaye daañ ko jullee nii moom ba maalul baax leen ñëwee yonentu ne Abbas ay wa jëlal tubbal loola neex xam nga yàlla fay na ko mu tubb tubb tubb saako bi ba at na lam mu bëgg ko xenu mënu ko xenu mu ne yonentu kaay jàppale moom yonentu ne ko mukk mu ne ko waxal kon ñi eh, nit ñi ñuy jàppale ma saako bi mu ne ko mukk tubbaloo yàttal <laughs> mu wàññi yenu mu diis mu wàññiwaat boo mën ko àttan yenu ko waaye waaye nag mooy bëgg a dee lam yenu di ko yóbbu àttanul ko bu baax waaye nag góorgóorlu na rek bu yóbbu ko ndax bañ see wàññiwaat dara yonent di ko xool di ko xool di ko xool ba ni mu duggee këram maanaam di ko xool bëtu ko xiir ku bëgg alal ah dégg ba ni mu duggee këram loolu dafa bokk ci xéwal yi nga xam ne yonent daan na ko def ak joxe gi mu gi mu mënoon a gi joxe loolu lépp am na ko ci alal teewul moom daan xiif ba bu tëddee ba léegi-léegi dafay takk biir bi ndax mën a taxaw te te loolu lépp jaar na ci loxoom ci alal waaye teewul daan xiif yaafu day baale bilaa xada biñ ci dudul mer fa tii lii sa jaayaahu mooy ay jikkoom mu ne lii mooy jikkoom yërmande mën a joxe xéwal balu bon jëm ci lu baax muy gàddaay di joxe te joxul la parce que da ngaa mel nangam joxul la parce que da nga koo mérito daf lay jox parce que moom dafa baax yonentu daf lay defal parce que moom noonu la mel mais defalul la parce que yow nii nga mel du la jox ba yéem ko dalay baal te du la mere am na koo xam ni mën nga def dara mu baal la fekk mer maa ngi ci xol bi fayeku de mënoon naa fayeku waaye ba léegi daal am na lum la jàppal ci biir xolam yonent na baal comme defoo dara yang fu day baale bi laa xam ne duñ ci dul mer bokk na ci misaal yooyu dem na xare tëdd ci ron garab di nelaw benn waaye fekk ko fa rocci jaaseem ne bu mu yàlla bu mu mucc boo muccee yonentu yeew mu ko kan moo mën a musul ci yow tey xam nga kooku nit loon koo xam ne dëgg-dëgg su fekkoon ne yàlla yónniwu ko wala nekkul yàlla rey nañ ko bu yàgg ndax loolu dëgg-dëgg mucc ci yombut kan moo mën a musal ci yow mu na ko yàlla waa ji lox ba jaas ji war jaas ji tiim ko ko yow kan moo musal ci yow ko xanaa sa mbaax mu ne ko demal baal naa la mu jéggal ko defu ko daara hmm? kooku dafay baale ci lu dul mer liggéey nañ ko Labiid bun Asam ab la moo liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw xamal ko li xew ne ko dañ laa liggéey xamal ko fi liggéey ba nekk wàccee ci moom falaqi ak naasi defut dara labit boobu daf koo baal mu ne yàlla musal na ma ci xayam kon duma ko topp makka wax naa leen léegi lu ñu deful yonentu amut waaye keroog ba mu fa ubbee makk daf ne izhabu fa antum tulaqa dem na yéen ñëpp baal naa leen moom yaa fu day baale bilaa xadd biñ ci dul mer dara des si xol bi yonentu bu la baalee lépp ma lay baal am na koo xam ne nag jëfam moo la baal ndax mënoon naa fayeku ci yow waaye xolam nag baalagul la ba léegi fa tii lii sa jaayaahu mooy ak jikkoom wa tilka lële dafay dafa waxoon ne ku rafet jikko la ku bëri ay kimtaan la yooyu lay liim benn benn mais wa tilka lële zabiyatuhu mooy kéwalam yeneen turam mun a kéwal guñ jàpp kéwal gi xoo ko mu geestu gisul kenn kéwal gi xoo ko mu geestu gis ne kéwal gi ko mu dem wuyu jikko mu ne ko dimbale ma rek dama am doom ju ndaw ju ma war a nàmpal te ñu ngi ma jàpp fii tekki ma rek ma dem nàmpal ko ñëwaat mu ne ko mbaa bu ma tekkee da nga ñëwaat parce que dañ koo rëbb moom yoonu su mu ne ko waaw mu tekk ko mu dem nàmpal doomam bi ñëwaat mu xeewaat ko sàmm bi ko jàpp ñëw yonentu xool ko mu xam ne daal yonentu am na soxla ci kéwél gi mu ne loo bëgg mu ne nga nga nga nga ba ba kéwél gi bëgg nga bàyyi ko mu dem su ko defee sàmm bi daal di bàyyi kéwél ko loolu ci yërmaandeem la bokk waaye ci kimtaanam la bokk watil këlale daw ma tuufoo mooy garabam yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn sàmm ñëw na ko mu ne ko seedeel wa ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mu ne ko du ma ko seede mukk lu may garab gi gëm la wala boog ñu ne mu ne ko lan mooy sama seed ne yàlla la yónni yonent woo garab gi garab gi daal di ñëw maay kan mu seede ko yow yaa yonent bi sallallahu garab gi seede ñetti yoon ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullaah daal di ah, garab gi sax wax na ne ñooy def ko sujjootal fa la yonent ko waxee su ma doon digal kenn mu kenn ma digal jigéen mu sujjootal jëkkëram ndax ba garab gi sujjootalee saxaaba yi dañ ne ko ñun ñoo gën a yee sujjootal la mu ne ko déedéet nit du sujjootal kenn su ma doon digal nit mu sujjootal nit ko ma digal ma digal jigéen mu sujjootal jëkkëram waaye loolu du ko def kon bokk na ci kimtaanam yi garab googu sujootal ko wa tëlka lalo talaatu moo di kanamam gu leer ga moo di ak fenkam wax naa leen léegi ne fu mu feeñ nga fàtte ñëpp ndax kanam ga rafet wazaali mu xayaaw mooy kanamam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne kanamam gaa ngi nii bakkan ba guddoon mu amoon i faas dégg nga bañ rafet lool wa tilka lale makkatuhu mooy makkaam wa tilka lale taybatuhu mooy taybaam wati wati lii tilaawatuhu mooy alquran bi ñu jàng wa zaaka lee ngay gis jëdwaahu mooy mayam dafa bëgg wax ne ba léegi boo xoolee gis fi jeexitu yonente bi sallallahu alayhi wasallam yu tax nga war a xam ne du moromu kenn makkaa ngi nii tey baa nga ne muy madina makka fa la juddoo de waaye ñoom ñëpp dañ ko weddi woon ku ko gëm nekku fa moom kese moo fa nekkoon nit ñi di ko gëm ba tey makka ku ko weddi amu fa loolu du kii ma bu nekkutoon dëgg koroon du mujj moom màkk waaye dem ba tey màkk ku ko weddi dund fa xeewawut fa dafa fekk moom moo nekkoon ci dëgg tey baa ngi noonu moomu ko muy Medina waaye tey Madinatu Rasul la ñuy wax pourtant moom gan la fa woon de dafa dem ñu teral ko waaye tey dëkk bi dëkk bi yonantu lañ koy tuddee hmm? la mu nekk ci dëgg moo ko may loolu alquran a ngi nii mboolem téere yi njëkkoon soppi nañ ko waaye alquran ji moom kenn mënu soppi dara ba léegi nam wàcceexoon ci jamonoom ba léegi noonu rek la mel yokkuñ ci wàññiwuñ ci xanaa loolu kiimtaan la kiimaan la wa zakari jët waaxu moo di mayam barxaamu barxaamu mi ngeen ngeen fonk nii di ko màggal maa di xaw mooy tagg yonent bi moom tagg yonent la fi nekkee moom lu mu rëy rëy rëy moom mu ngay tagg yonent boobu moom barxaamu barxaamu mi ngeen di màggal di ko yéem di ko joxañ ba mu wàccee ci ay rapport mbooloo mu bëri ba mu naan fa ayna barhamu ma barhamu xatta fanaw fi xubbihi waxaamu waaye lan mooy barhamu sax ba ngeen jeex ci bëgg ko daal di gërëm ci moom barhamu moom xaadim moom mbindaan yonantu la xam nga dafa bokk ci kiimaanu yonantu bi ay wëlli wëlli yu ko topp boo xoolee bàyyi nga xool ko ni màggee ñu ne lan la ñuy mu ne mbindaanu yonantu nga war a xam ne kon yonantu moom kon lan la mu ne barhamu xaadimuhu mbindaanu yonentu la dafay simmeeku liggéeyal yonent bi sallallahu bu yonentu wootee taalibi lay doon fa tii di jàng ma mooy tagg yi ma ko tagg mooy tagg yaa ngi su nekk ngeen di gis may tagg yonent wa tii lii mu ngi suufel ci kanam yonent bi mu ne wa tii mooy ñaawteefu barxam yi maanaam sama ko jégal ma moom nag la wala nga ne yow lay wax ak wala man lay wax ak wala ñun lay wax ak maanaam képp koo xam ne ni am nga ñaawteef ñaawteef du du la yàq góorgóorlu rek jéem a tagg yonent bi jéem a tuub jéem a góorgóorlu te nangu say bàkkaar yàlla jégal ko xaal boobu koy jàngale léegi-léegi wane ne nit mën naa góor góorgóorlu waaye teewul mu am ay rëcc rëcc bu bu tegoo ci yoon bi rek yàlla jégal ko rëcc rëcc yi moo tax mu ne yonent bi tagg yaa ngi nii waaye indiwaale naa bàkkaar yi pour yàlla jégal ma watiili shafaatoo mooy ràmmam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam watiili risaalatoo mooy yonentoom li tax mu lëkkale bakkaar ak ràmm yonentu daf ne shafaati li ahlil kabaayiri min ummati sama ràmm ñeel na borom bàkkaar yu mag yi sama xeet yi yonentu nag lépp bàyyi lépp yonentu la bëgg moo tax moom day day day tuumal borom bàkkaar que moom bëggul ñàkk dara ci yonentu mooy ràmmam yonent bi jangen histoire romb ga mo yomal xiyamati pour yàlla atti jaami fo yonentu wax wati li risalatuhu mooy yonentum gi mu ngi nii gis ngeen risalam gi mat na bayekool yaa ngi koy jàngale léegi sëriñ saa ngi koy jàngale walli yaa ngi koy jàngale xale yi sax ñu ngi ñu ngi ñu ngi jàngale jàngale m yonente bi sal allah ai sallam wati li fasaatuhu mooy fasaaxam mu ne yonentu ko fasaa laxoon moom waxam faslun lahoon bayinun waadixun waxam dafa leeroon nañ dafa daan bëri nag wax wax waxaat ko pour dégg lay wax bi gën a gën waaye bu daan wax nànk nànk la daan wax wax leer nañ da mën a inrab ay bëñ lay firi maanaam dafa wax ne bëñu rafet la yoroon moom yonent tagg na ko ba tagg léppam bu mu ñaan ñu yi dafay mel ni yuul waaye moo gën a moo gën a rafet watiili shijaatu mooy jàmba mooy jàmbaaram watiili basaalatuhu mooy kattanam sajaatu ak basaala jàmbaar lay firi waaye shijaatu mooy koo xam ni dafa jàmbaar ci xolam amul lu muy ragal yonentu doon daaw daaw ragal imaam Ali nee na bu xale tàngaan ba tàng ñun ñëpp yonentu lañ doon lañ doon aaroo ca gannaawam la ñu nekk saxaaba yëpp doon nañ xale waaye yonentu mosu daw xam nga ne normalement bu nekkutoon mooy waa doon ah léegi-léegi nag boo xare bi tàngee foofu <laughs> foofu am fu ma waaye daf di waaja moo tax Omar ibn Xataab lu mu jàmbaar jàmbaar keroog xare Uhud moo raw tënk gërëm waaye yonent musu daw Uhud saxaaba yëpp daw na moom mbooloo wër ko fi mu taxaw la taxaw musu daw te pourtant foofu dëgg yàlla bu doon kuy caari caariñ na parce que doon nañ ko jaase ca mbagg fekk mu ngi sol mbubam koŋ ñaar moo tax duggut damm bañam ya xaañ ko ci bopp ba ba nit naan dee na mosut buusi ku gën a jàmbaar ki mosoo gis ku jàmbaaree ni moom xare oh, xoneen saxaaba yi dañu ah ñun de mbooloo mu bari lañ léegi tey du ñu not بن دمي القران ملل نقرب لمتين وضاقت عليكم الارض بما رحبت سو سلم يات يات كره فقط سين ثم وليتم مدبرين واي كرو قري حنين بصحابي دوي خملو يونس ديف موم ور بخلام دي جيمني نوني ابو سفيان دي تي بخلا جي نكو بول دم من انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب من يونس لا لي مو ما دوم واخ لو اموت من ماي دومي عبد المطلب keroog wane na njàmbaaram si la Abbas woote yéen ñi jaayantoon ak yonent bi ci ron garabu samura ga ñëw leen mbooloo mi ñëwaat loolu moom mayaat saxaba yi force mayaat leen doole bañ songu noonu yi ba gañe leen ba jàpp lañ ci jàpp dégg nga euh, loolu njàmbaar yonent lay wane. ndax keroog moom bu defoon ni gars rek ñu noot leen ba faw waaye ba ñëpp dawee moom dafa war baax la am ne. jëm di songi gaay yi ana nabiyu laa kadib keroog keroog keroog bis boobu bu doon yonent gi du dëgg ko dana feeñ waaye keroog la gën a dëggal yonent gi mu ne man yonentu laa la mu wax noon la waaye doomu Abdul Muttalib bi du ma daw ñi guddi jot na am yëngatu gu xew Màkka nit ñi génn di xooli li xew dajeg yonentu muy dëpp ma leen gis naa ko dem naa vérifier du dara bu doon man nag ko naa woo kii ne ko ay kaa gunga ma kaay dundal ak diw eh, kaay dem dundal ñu xool li xew waaw <laughs> damay woote door a génn waaye moom dafa génn balaa gaa ñëw ñu fegal na leen li xew jàmbaar loon histoire mosul nettali fu mu dawee ci xare wa tiili basaalatoo mooy kàttanam boo ko bëggee xam laaj ko mbër mi nga xam ne nii kum bëree woon daane la dégg nga na ko a daane mu ko ñëwoon ñu bëri parce yonentu doon woon sëriñ boo xam ne danga koy bu mu mu daanu moom jàmbaar la dafa matoon ci côté bi côté yëpp mu ne ko buñ bëree bu ko yonentu daanee mu tuub dañoo commencé rek yonentu teg ko suuf moo tax bëri na mu ne lii mënu ma ko gëm <laughs> ñëwaate ñu ñëwaat yonentu tegaat ko suuf noonu laa moon kàttan kum songoog nga ne kii ndax doole ji ko yàlla mayoon bokk na ci kàttanam moom kese dàqina xare jël loxoom tubb ci suuf sànni ko mu dàq xare yàlla na ko ma ramayte is ramayte walakin allah rama loolu du sa loxo waaye yàlla loxo bi yàlla la kon kàttanam kàttana yàlla la mu ngi noonu ko fasaaloxoon wa tiili karamatuhu mooy taraangaam wa tiili wa saayaaho mooy ay ninkaanem xadisam yaa ngi nii teraangam yaa ngi nii maanaam daf bu wax ne yonent ko daraam jugut fi wasalli yàlla nga yaa rabbana yow suñu borom wasalli man yàlla nga sëlmal ala hadal bi sallallahu alayhi wasallam wa kammil yàlla nga matal rabbi yow sama borom bushraahu mbégleem bégal gi noonu yonent bi di bégal aljana yàlla nga matal ba ñëpp jot ci amin wasalli yàlla nga julle yaa rabbana yow suñu borom wasalli man yàlla nga sëlmal ala muhammadin ci muhammad warzuq yàlla nga wërsëgal ak ubayda njaam si luqiyaahu dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nga wërsal njaam si gis nga bàyyi dafa waaj dafa suufeel boppam sax waxu sa jaam bi njaam si def ko tasxiir yàlla nga ko wërsëgal dajeeg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yonentu mooy jëmmi xéwal boo dajeeg jëmmi xéwal yow soxlaatoo leneen moo tax moom loolu la daan ñaan ki xamul nag moom dafay ñaan yàlla naa xam nangam yàlla naa xam nangam yàlla naa xam nangam yi nga xam ni lenn la ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ki xam dafay ñaan dajeeg jëmmi taar jëmm ji mat joo xam ne boo ko xamee dootoo soxlaa ci leneen wasalli yàlla nga doole xewal yaa rabbana yow suñu borom wasalli man yàlla nga sëlmal ala maaxi dalaali ci aji faa réer alladi ki nga xam ne xat baana feeñ na uliyaahu kawem yonent bi nga xam ne mooy faa réer nga xam ne ñëpp xam nañ ne moo gën a kawe ñëpp yàlla nga julli ci moom wasalli yàlla nga doole xewal yaa rabbana yow suñu borom wasalli man yàlla nga sëlmal ala muhammadin ci muhammad warzuqan yàlla nga wërsëgal barxaam barxaam bu yaaw càkkuteefam barxaama li muy sàkku yàlla nga ko jox muhammadul muhammad bahara not na ci taar al akwaana mindeefi wala boog bahara not na al akwaana mindeefi siimatuhu jikkoom jikkoom ji lottal na nit ñëpp ku bëgg mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem ba yëg ne mën ngaa jël ci moom rek waaye mënoo jël léppam taabatee na arumatuhu ak cosaanam moom yonent bi ci maam juy caaxaan ay maamam yëpp ñu baax lañ waraaqa yéeme na mabhaahu taaram mabhaahu mooy taar bi nga xam ne mooy feeñ ci kanamu nit ki nga xam ne boo ko xoolee koy bëgg yonentu lu yéeme la ci amoon muhammadul muhammad umdati mooy sama kenn mooy poto bi ma téye ma dëgër bàyyi ne bu doon yonentu bi bu yàgg waaye yonentu moo tax mu dëgër muhammadul muhammad wazari mooy sama ndëgër laay wazar wazaru moy wedu way Muhammad moy sama wedu way moy sama poto bi ma téye téyewut moo ci mom la wed ana man tufayl yuhu maay asqaleem wëb nii sama doom yi sax mu sammaahu moom ko tuddee sama dom yëpp yonentou la ko tuddee ni la bëgg yonentou bi sallallahu alayhi wasallam xam nga ne ku bëggee ni yonentou bi nga bëgg ñëw ni dafa yàq yoonu yonent bi yow xaw ma yow lo doon xam nga ku yàq yoonu yonent bi du jël ay milliards ay millions yi nit di leen duggal ci diine yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ko bu doon daa bëgg a yàq day defar ñaata nit la ñoo jaaree ci loxoom dugg ci diina yonent bi dafa fekk ne yonent la bëggoon moom la doon liggéeyal waaye daf la ko gën a xam dégg mu ne man xale si yonent la wuteeg li gars yi nekkee nii tey ku ci ànd ak sëriñ balaa yàgg nga ne yaa man sëriñ bi waaw waaye bàyyi moom mosul wax ne moo mën yonent bi daf ne xaleem la mindaanam la bëkk néegam la nii laa amee woon teggin moom waaw waaye da gis sax bàyyi sax da ngay gis ko ànd ak moom parce que mu ne maa ko gën a mën alxuraan wala maa ko gën a mën nangam loolu nga dégg ñu ko wax ba pare nag toog di lay seen wax ji ne leen ñu koy layee mooy ne bàyyi ku nekk bëgg nga am doom ju doom ju la raw ñu ne ko ñoom doom yu baatin lañ ku la seetal ne yow baatin nga kon maa raw ñu bàyyi daaw def loolu ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndax xam na yonent mooy kan hmm? Hmm? waaye ne bàyyi maa ko gën a mën alquran waaye moo ma gën a xam yonent bi te alquran di jikko yonent bi xam nga loolu mooy wax ju kenn xamut su ko defee nii la wàccoon boom ci kanam yonent mu ne as xalem la tufay li yuhu xaalis soo xam ni bu yonent dem maa koy téer bagage fu mu jëm ma nekk ci gannaawam man na kontaan rek mooy sama mbir te doom ji mu am moom laa ko tuddee nga xam ne koo bëgg wam nii sama doom mu sama moom lañ ko tuddee muhammadun mooy muhammad ahmadu mooy ahmad mu ngi lim turam yi muhammad mooy ki nga xam ni sant gi ko yàlla sant yàlla mosu ko sant kenn ahmadu mooy gën a sant yàlla maaxi mooy ji faareer waxaashiruna mooy ki nga xam ni moo ñu mooy mooy mooy moo ñu pang maanaam moo ñu dajale lépp lu nit am rek ci yonentu la dajee muhammadun muhammad aaqibun moo mujj ci yonent yi akrim waa akrim teralal bi asmaaw ci ay turam mu ne Mouhamadou Mouhamad basharun mbindeef la waaye wala si nekkul kal bashari comme mbindeef assir fi gaa ji sell al xaqiqi dëgg-dëgg nekkul nit dëgg-dëgg nit nit kilis la waaye du nit rek mu ne Mouhamad mbindeef la de waaye nag bul dof nag ba yaakaar ne nit kese la comme ni ko nit ñi waxee nit yonent bi nit kese la waxuñ dëgg de la ko différencier nit ñi mooy waxaa ilayya dañ may waxi nit ñi waxi wuñ leen. loolu moo ko teqaleeg nit ñi li ko toqaleeg nit ñi mooy moom ci yàlla la jóge rasul minallahi ñun ci moom lañ jëlee ñaar yooyu ñoo bokk waaw bàyyi daf lay bëgg wax ah la waaye du am na loo xamul ci ko yàlla nag waaye na bu kawe bu nëbb ci moom bu la neexee leen dafa mel ni jibril jibril ñëw na ñëwoon na yonent bi màkka nit la ba muy ñëw waaye nit te bu ah, maqaamam dëgg-dëgg kooku yàlla rek ko xam jibril fees na diggante asamaan ak suuf boo ko gisoon mbaggee wurus lay taw moo tax ku gis jibril léegi nga am xaalis waaye ba muy ñëw moom nit la koo xam ne yow mi sax boo ñëwoon jéem a moom amee nopp ka ci néeg ndax alam bi ku fi wàcc si melo ñooñu alam bi ngay yore waaye nag jibril bu delloo ci dëgg-dëggam moom yow mënoo ko sax teg bët moo tax waa Màkk bañ jaaxle ci yonent bi ne waaw teewoon yàlla yónni yonent yàlla ne leen walaw jaalnaahu malakan la jaalnaahu rajulan ma ne bu mu ko defoon yonent sax dafay nekk nit ba léegi lënt bi ngeen amoon bi ngeen am nii ci yonent bi moom ngeen continuer di am bu malaaka ñëwoon yàlla ne nit lay nekk ngeen naan kii lu tax mu nekk nit fekk malaaka la xam ne boo xamu leen yonent bi mu yónni ci yéen lan la da koo gis ci jëmmi nit rek kon du loo dajeeg rek nit ku raxut dara la déedéet am na koo xam ne nit prise la yonent la noonu la mel wa rabbi sama borom taa sammaahu tuddee na ko taaha mu ne yàlla taaha la ko tuddee ñu ne taaha mooy taaha yonentu ba muy rañaan ba ci xadara yàlla ba dafa xalaat li yàlla wax yonentu yàlla Moussa simmil sa ñaari dàll yi mu am teggin bëgg simmi yàlla ne ko taaha dëggal ci kaw yow duggal ak say daal hmm? yàlla taaha la ko tuddee salla yàlla na doole laa yoon alay ci moom foofu moom yonent bi safwatu mooy ki yàlla tànn musallima daa ji sëlmal ci moom ma ahaaja feeg mu ngi jéqi albaala xeli zikraahu tudd yonent bi wala fàttaliku ko feeg nit a ngi fàttaliku yonent bi ba kontaan yàlla na juri ci moom wasalli yàlla na doole xew rabbana yaa rabbana yow suñu borom wasalli man yàlla nga sëlmal ala muhammadin ci muhammad al mustafa kuñ tànn ki ma taaba feeg mu ngi teey maxnaahu saxuwaayam fekk fu yonentu sax mu ngi teey yal na yàlla julli ci moom wasalli yàlla nga doole xawle yaa rabbana yow suñu borom wasalli man yàlla nga salmal ala mutil ataaya ci kii joxe may yi biim naaw ci ndey joram wayu salaam ak càmmooyam ak a mën a tagg yonent bi mu ne yonent bi nga xam ne dafay mayeen boo sëb duraat ni ko gars yi di waxee ndey joor ak càmmooy yal na yàlla julli ci moom wasalli yàlla nga doole xawle yaa rabbana yow suñu borom wasalli man yàlla nga salmal ala muhammadin ci muhammad man ka nga xam ne bara yetti na qalbi sama xol wa asxaaxu te wuril ko baraayet na ko mooy mandil na ko ci bëgg yonent bi waaye nag wuri ko wuril ko ci bëgg yonent bi ku mandi man naa bañ a xàmme ku wuri dafay xàmme bàyyi na moom daf ne yonent mooy yetti sama xol ngir bëgg ko waaye moo ta xol bi tamit mën a xàmme wasalli yàlla nga ko yaa rabbana yow suñu borom nga sëlmal ala muhammadin ci muhammad man ka nga xam ne safa saafara na jismi sama jëmm wa adnaahu te soŋloo na ko mooy sonal na ko moo feebar feebarloo jëmm ji ndax xalaat ko ci laa demee ba feebar waaye moo ko saafara xalaat ko ci laay wéree bëgg ko ci laay lottee bëgg ko ci laay amee kattan bu bëggee dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëmm ji dafay jeex tàkk bu dajeeg moom daal di wér wasalli yàlla nga doole xewal yaa rab naa yow suñu borom wasalli man yàlla nga salmal ala ci muhammad waqbal yàlla nga nangu taxaayaaw ay nuyoo min nuyu jógee ci man yàlla nuyu yi may nuyu yonent bi yàlla nga ko nangu xam nga kii bëggoon na yonent de léegi nag ku jegewut maqaama bi mooy taxaw di critique koo xam ne dafa raw fuuf ci bëgg yonent bi ci liggéeyal ko ci côté bu nekk noo mën a mel rek ku la raw ci loolu nekk ci gannaaw nga ne kii daf daan yàq yoonu yonent kon de yàq gi rafet na wasal yàlla nga doole ko yaa rabbanaa yow suñu borom wasali man yàlla nga sama la muhammadin ci muhammad wasaara mujj na mas waaw sax waaye moom yonent bi bi xal bii sama xol yàlla nga judd ci yonent ba nga xam ne léegi man ngaa wax ne sama xol la sax ndax bëgg ma ko bëgg du tàqali man mukk wasal yàlla nga doy ko yaa rab naa yow suñu borom wasalima yàlla nga sën balaa ci muhammad wax di yàlla nga jubal bi ci man a umri sama dund bi yépp balaa yaaxu ay mbindeefam yàlla mm, yàlla nga jubalee ci man mbindeefi dégg nga وصل yàlla nga doon ko yaa rabbana yow suñu borom wasallim man yàlla nga sëlmal ala muhammadin ci muhammad wa saxaabin ak ay saxaabaam summa mawlaahu topp ñi méngoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku méngoo yonent yàlla yàlla julli ci yow méngoo yonent moo ñu topp yonent bi in uridu al islam wastatuma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh